ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تضلنا بمعصيتك اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم نجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل في قلوبنا نوراً وفي لساننا نورا وفي بصرنا نورا واجعل من خلفنا نورا ومن أمامنا نورا اللهم أعطنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رزقا واسعا نصون به وجوهنا عن التعود لسؤال خلقك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيره اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف الطف بنا يا لطيف يا عليم يا قدير اللهم لك الحمد حمدا دائما عند كل طرفة عين ونفس نفس وتنفس نفس اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك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 وأعنا إذا استقمنا وكلنا ولا تكن علينا وأحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين واجعلنا عند السؤال ثابتين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وأدخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها إصلاح برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم وفق ملوك ورؤساء المسلمين اللهم وفقهم للخير وأعنهم عليه اللهم كن لهم ولا تكن عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات سبحان الله تعالى بكرة وأسيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله تعالى بكرة وأسيرا kabar Allah ñaari kabar la bi Sudirman ne nañu yéene maanaa julli fitr la maanaa julli xajit allahu akbar allahu akbar allah maire Idrissa Diallo daaw mu togon fii jiite jiite dëkk bi tey yàlla yóbbu ko lan ngay wax waaw di profito si occasion bi di ko dolliwaat ñaan di sàkkuwaat si askan ñu ñaanal mu doon ku baax mu doon modèle ku bëggoon askan wi ku bëggoon commune bi donc yu mel nii day baax ñuy fàttaliku ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon donc yoroon commune bi yor bu rafet donc bu occasion yii nii amee tey mu ñëw wuutu ko toog place am donc mënuma lu dul di ko ñaanal di sàkku ñaan aussi si kilifa diine yi fi nekk yëpp

te man ko borom yombalal dinañ def lu ko raw lu raw raw. monsieur le maire bu ba nga ak léegi yagul danaka président jël na janvier lañuy def élection locale yi di nan nga koy préparer ak monsieur le maire la projet fi ci biir waaw ni koy préparer parce que je pense wax la man commune de dalifor lu fi def parce que lu fi def man nga ko je pense que le président Macky Sall fi def man la ko defal keneen mu def man la ko defal parce que man aw ma lu dul lu dul Dalifort tey je peux dire que école bii ma taxaw nii nii fi laa jàngee fi laa débuté donc ak lu mu fi mën a def mënu ma ko tiitaroo parce que sama warugar la dama ko war a def donc moo tax aw ma si pression aw ma si dara. nous ngi si temps wu nous dinañ liggéey bis élection askan wi dina xam bu baax lan lay parce que la population est très consciente malheureusement les les politiques ñoo yaakaar ne ñoo gën a muus askan mais la population est très responsable donc d'ici si waat suñu mbokk politique yi à plus de retenue plus de responsabilité bis bu ñu ñu bàyyi askan wi mu choisir ki nga xam ne yaakaar nañ mu gën commune bi donc ce projet Machallah, nous avons commencé te bientôt dinañ commencer le bari bari donc je vous donnerai un rendez-vous très bientôt donc c'est un peu prématuré tey ma wax si parce que am na ay xam ne il faut mu aw fa te bu fa jaaru bu ñu ko yëgee si bedd bi amaana mun na manque de respect donc dinañ jaar conseil municipal dinañ ko saa présenté donc après ça sera le moment ñu présenter ko askan wi Nous xam exactement suñu mébét pour suñu commune bi ñu mën bien vrai que nous na commencé boo gis di am fondement loolu man pour man fondement la woon donc euh, tabax mi nag mu ngi ñëw te bëgg nañ ko yóbbu ay ay immeuble immeuble immeuble incha allah rabbi. yan dénkaane ngay jox xale commune bi ak yan ban kàddu ngay mujjee. waaw xale commune bi man li ma leen di dénkaane mooy li may dénk sama bopp parce que dama bokk si ñoom dama nekk jeune instant yi comme ñoom bokk si instant yi commune bi tey jii image bu nekk si ñoom dafa nekk si man donc li may dénkaat sama bopp mooy plus de responsabilité parce que.

donc je profite instant de l'occasion parce que am na ay xale yoo xam ne fii lañ dëkk si commune bi sont champion instant du Sénégal actuellement ñi ngi dem pour nek champion d'Afrique bi ñaan commune bi nañ leen ñaanal ak yeneen ak yenen pour montrer que y a tellement de potentiel yo xamné mi ngi si instant commune bi donc peut-être l'occasion mo présenté wu ñu def leur promotion mais commune bi amna ñu bëri ño xamné dañ la wara titre dañ la wara sago donc euh, je profite aussi de l'occasion pour lancer un message ni après bientôt on va dinañ woowaat association parce qu'on avait organisé un forum sur l'emploi des jeunes et l'emploi donc la euh, viabilité. mercredi yi xam naa dina l'Assemblée assemblée générale bu am si appel bi président Maxal que ni si li pour organiser réunion publique d'information, information pour yu si si formation emploi dans les plus brefs délais comme le président Max donc je pense que va vers ça di ñaan rek ni lu pour l'intérêt exclusif de notre chère localité merci beaucoup. merci à vous aussi.